premiers actes posés ban ban euh, am. ban acte acte assainissement par nii jubal jubanti. bon sérieux bu ñu fekkee ay liggéeykat naan leen jubala jubanti mel na ñoom jubuñu woon gis nga kii jub. jub na a beaucoup à dama ne la xam nga administration dama ne la xam nga tey pointage par exemple. Mm-hmm. lu yeewu huit dem liggéey mais euh, loolu yàgg na fi am am na fi bu yàgg. mais c'était pas respecté du tout. waaw non en fait xam nga lan la ñu am problème mu problème mu man je me problème mu nit la am. ñoom dañ li ñu war a wax mooy nañ nit ñi respecté seen liggéey. par exemple boo nekkee ci hôpital na nga respecté client bi ñëw na nga respecté malade bi na ainsi de suite ainsi de suite jikko yi la war a defar. mais loolu la ñuy réclamer. jikko yi man loolu la man loolu laay laaj. di laaj xaalisu réew. xam nga tey da ngay gis Modou Aw Ndiaye liggéey bi ku vestam dem doxi ji ay soxlaam. dem lijjanti ji leneen nga gis Ndeye Sow di liggéey ci bureau bi booleeti ji jaayantu di indi ay cuubam ay cuuraayam yëpp di jaay ci biir société bi nga gis keneen kuy liggéey am ay taxi ma clando yi daw ci biti yooyu yëpp liñ ci maanaam li mu ci war a régler du wax jëf la lim ci war a régler jëf la du wax ba ci ki ci bunt bi planton bi ci bunt bi garde garde bi ci bunt bi kooku yëpp dañ ko war a won nan la war a accueillir nit wala ñu changer nit yañ fay teg parce que même ni ñu lay accueillir day mel ne yow yalwaan moo la indi wala da nga ñaan si wala dara war a li ainsi de suite ainsi de suite kon ba tey jikko yi la. Mm-hmm. mais jubal jubal kii jub jub na ba pare kii dëng dëng na ba pare sàcckat bee ngi sàcc ba tey. am ay milliards taxul mu nekk sàcc dégg moom laa wax dama ne la sàcc jikko la ci moom na am ay milliards mais sàcc lay doon ñun waxuñu loolu xam nga li ñu wax mooy comme ki comme li ñu wax na nañu respecté nit ñi respecté seen liggéey xam ne ñi dañ leen fa teg jamais le Covid ma dem pour dem def test ndaw si ba ma ñëwee pour ñu mu defal ma test man maa toog di ko xaar man malade bi man maa toog demul pause demul fenn loolu dafa toogoon di defar ay weem je parle sous le contrôle de Djigo Mamadou Djigo bi de bi nekkoon ci coalition Jotna la chose en fait yow li ngay sàkku nii ñoom moom la ñuy sàkku non non ñoom jub jubal la ñuy wax jub jubal mooy la bëri nay jub mooy la bëri li ngay wax nii c'est la même chose waaw mais xëy na man jub bi dama ko dugalee feneen mais daa naa ne respecté sénégalais yi fi ñu teg nga xam ne sénégalais yi ñoo tax ñu teg la fa li nga fayeeku mu barkeel am na nag ñu mel noonu macha allah des nga dugg ci béréb boo xam ne sax mhm. da yaakaar ne kii bu paree ci yow dafa am loo ko war a jox tellement que da tarbiwu nu la keneen du def. parce man li ma la bëgg laaj Ndeye Sow mooy yow mi nga xam ne xam nga leen fréquenté nga leen. Mhm. Euh, xam nga li capable li ñu par rapport aux aspirations des Sénégalais les attentes euh, cohésion nationale ndax ils sont capables de ça. non la paix moom mënaguñ cee nekk parce que ba tey ñi ngi ñoom ñi ngi mel ni ku nekk ci atmosphère opposant ba tey ñi ngi bouclier te ñoom léegi ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy borom réew mi ñoom ñooy borom dëkk bi. ñoom opposition wartu leen naka ci naka ban ak seeni seeni façon rek. ils sont ils ont réclamé ñu delloo oto yi. ils ont réclamé xam nga oto yi loolu waxi dof ñan la leeral kan la waxal réclamer oto yi parce que je pense que moment moment bi ngay def passation de service. ci non non waaw ci ngay joxe sa caabi ci ngay joxe sa puce téléphone ci ngay joxe lépp. à part kër gi nga dëkk bu dee maison de fonction tu as peut-être boo koy rendre tu sais même les passeports diplomatiques lu dañ di daw bay daanu koo xam ne ministre la bu weer di nga ko fay pendant six mois di nga continuer di ko fay pendant six mois te ni ma xamee Ousmane su ko mënoon a dindi dina ko dindi kon kay kooku passeport diplomatique jarul jarul ngay daw bi la Ousmane même bu xamul sax day fayantoo ci loolu la ñu wax sénégalais yi gëmuñu ko. mais est-ce que vous vous rendez compte que vous parlez au premier ministre du Sénégal. dama man je parle à Ousmane Sonko bi nga xamoon je parle je suis entièrement d'accord euh, c'est le premier ministre c'est le président c'est un président auprès du président comme il a fait des ministres auprès du premier c'est ça qu'il a fait parce qu'il a pris des gens yoo xam ne leer na a dugal seen poche loolu laa am naa droit nag en tant que citoyen sénégalais samay wax affaire sàcc yi ñuy wax ak dénonciation sàccal ki sàccal ki Ousmane Sonko àndul woon fi woon ak Taïbu Ndiaye Taïbu Ndiaye nekkoon ci ñaata par 3 mois Taïbu nee na dañu daan am ay vingt 25 millions. vingt cinq pour cent alors après ils ont cinq millions millions boo xam ne après dañ koy séddoo tous les directeurs ont été maintenant si on veut aujourd'hui pour venir ñu dire que une caisse noire warta exister li euh, privilège yi ministres yi amoon warul woon am alors que ñoom ñoom simple fonctionnaire ils avaient des privilèges quand ils étaient des des des des des des, des syndicalistes parce que pour man booy liggéeyal sa réew mais soxlawul nga nekk dara yaa ngi liggéeyal sa réew borom fii mi ngi liggéeyal Sénégal parce que mi ngi embauché ay nit di leen fay. bu nga liggéeyal sa réew te doo nekk ministre doo am benn poste voilà. que voulez-vous ñoom bi ñuy nekk ay syndicat bi ñuy liggéey impôt domaine Ousmane yoroon na syndicat. lu tax boobu kaasu lu tax boobu kaasu ne euh, fonds commun yi kees yi yëpp yi am nañ ko dindi. mais il en a profité tabax kër goo xam ne simple fonctionnaire waru koo mën a tabax ak joomaay léegi nag ñu toog ba léegi biñ ci bénéficier woo ba géex.